souvenirs. Rồi. Rồi. wattuwaay yow nana dana yow dina yoo dof yet yow daal yaa na yottu daal yaa na ngi gën a dof man naa am xaalis yet man yi yëpp gaa yi du ma amee xaalis dinaa yee faj yow mii bu tooba yaay sama yàq nga nag du ma teetaat nay dof wax dëgg yaay na xaalis bi ñëw yet bu xaalis bi ñëwee bu sooba yaay di wéy penn penn yappaye naa woo waa yëfiney mbaaw tax ak waa Fane ñu wàccee yappayaat foofu ci cabine bi soo leen defaree ndékki danga koy wàccee ni ñu ndékkee ko waaw wàccee leen ndékki waaw man indi yabaa bi am naa foofu kër <laughs> tey yàlla waaye cëfay sëñ bii moo moo aay ñoom Ih, maar naam ga je Maar mijn gast, hier keek je dan naar Nee, jappe, bu baax ci kër gi dinaa faj jàppee ci kër gi yow dafa yet man ma am je, amul problème amul benn problème Jean Michel dama bëggoon ñu waxtaan ci tuuti du bëgg nga Jean Michel wér. loolu rek mooy sama yitte doom. papa ñun ñëpp bëgg nañ Jean Michel wér. man mii sax bëgg naa Jean Michel weer ndax wéradi gi mu nekkee nii nekkul lu ma gënal. waaye papa est-ce que doo jéem a tan nga jéem a waxtaan ak moom. da xam dara. dama dama njort rek. fekkee peut-être moom boo si waxtaaneek moom mën nañoo dimbali ci Jean Michel pour mu weer. ah yow sa yow nga xamante ne si jëkkër la kay bu fekkee mu xam na si dara kay wala mënu si dara kay yow kay war a waxtaan xam nga problème wala da am loo yaakaar si moom ne war na ko mën a def daal. damaa yaakaar rek te papa bu mu xam ne sax man wax naa ak yow dama am jortu ne rek peut-être xam nga ko moom dafa ñeme ay dem si ay sëriñ ak yooyu noonu. Hmm? mun na am mu dem si sëriñ mu wan la sëriñ boo xam ne mën naa faj Jean Michel. da ko sëriñ déedéet dama ni. Hmm. comme moom parfois day dem si ay sëriñ ak yooyu pour que mu won ñu benn sëriñ boo xam ne mën nañoo faj Jean Michel waaye papa dimbali ma rek bul ko wax ni man wax naa la dara. yow looy ragal si loolu sa jëkkër la kay magam ma ah, xam moo feebar kay ah ba kay rek dinaa ko gis waxtaan moom bu soobee yàlla doo si feeñ nag doo si feeñ waaye dinaa def sama kéemtalaay kàttan waxtaan ak moom bu fekkee moom mën na si dara kay. mu was na si àq. am naa njortu ne mën na ci dara am naa si njortu bu baax nga si njortu bu baax. waaw ah man tamit dinaa dinaa wax ak moom moom tam mu war ak ndax warta seetaan rakk ji mel nii mm-hmm. ndax rek xam moom bu mel kër gi dara du gis ne boobu ba léegi sama kanam gi nu mu mel. sonn nañ ñun ñëpp. Ah, ci suba ba tey dafa yendoo jooy. fii la jaar fii la jaar si suba si kay. amul jooy yu mu jooyul xeetu jooy bu nekk jooy na ko. dama kaa yërëm sax xale bi rek. waxtaanal ak ah, wax ak moom yaakaar. wax ak moom moom ne. bu ñu waxtaanee ak moom. Hmm. Jean Michel dina wér. incha allah incha allah papa xam ne wax naa ak yow de. ah dama ah. bëggul rek mu xam ne maa ngi. nee naa wax ak moom kay bu fekkee xam na si dara wala mun si dara kay man dinaa si xam dara yow kay incha allah say sa jaan wàcc na kon loolu rek moo doon sa wax. waaw waaw kay wasalaam jërëjëf.

bëgguma tan yéeg ne man maa wax ak yow nii looy ragal sa tan wax ak man xanaa du sa jëkkal doom ah ñu fi moom soof soof trop ñii soof nañ trop bu soobee tan moom dinaa wax ak bu soobee dina ma wax moom moom moom moom si xam ak lum si mën a jiitu si affaire bi mu def ko si bu soobee yàlla moom moom fi ñu doon sonn trop nag Eh, tell them, eh, eh, eh, Kai, Kai, Kai. Just pass up. Yoba. Yo foto go. Tama dinu. Daga gelo. Ah. Atan baba. Gile harapaje. Gis naa to tey yomb naa to tant. Gis nga nu mu mel. gis naa ko tey gis naa ko de. ci yaay yaay kii xelam nekkul. ah tey yooyu moom ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ni xeyam nekkul. te yow jéemoo def benn effort boo xam ne mun nga kaa jàppale. effort yi. waaw. ah waaw papa papa man ban effort yaa ci mën. ah yow kat yow damaa xamante ne yow da ngaa bëri dugg-dugg ah. dama sax formation yooyu ba yow da nga am ay xaritu sëriñ. ci sa xarit sëriñ yooyu nga xamante ne ñoom ngay nekkal kay war na seen mën a def dara. ci mais pexe man kañ kañ na ma xamat sëriñ man ah yow sa jabar fii la toog wax ma yow am nga ay xaritu sëriñ kay te sa xarit sëriñ yooyu xëy na ñoom seen bopp mën nañ si def dara. nga xam ne kii saraxal nga am yërmande si moom ndax gis nga kër gi nu mu ne tekk benn place. ku wax yooyu mamitu dafa na ma am nga ay xaritu sëriñ. te yow sa xarit sëriñ yooyu mun nañ la jàppale ma bëgg nga wax sa xarit sëriñ yooyu ñu jàppale ko ndax kii sa kii bu dofee mooy kër gi ñëpp dof nañu leer laa la wax nag ndax kër gi mu ngi ne teg selaw gis nga kër gi dara boo seetee ambiance amatul sax si biir kër gi yooyu moom buy xayaat kër gi moom bu ñëpp dofee tamit dinaa yeen faj. waay waay waay doo faj kenn boo doon faj nga faj sa rakk ji toog. dinaa to faj de yi may ah. xaay bis bu yettee nga xam ne dinaa to faj. il ñu xaar ba mu yegg si nga koy doo ko faj. waaw yow may ma. yow mami tu mooy wax yooyu. mami Tou déggoo li moo wax. nee na da am ay xar sëriñ say xar sëriñ yooyu war na laan mën a jàppal ñu faj ko ah. yooyu tate tate tate yee yee wax. bu ma waxaatoon leneen nga dégg leneen. li ma wax li dong la may ma jàmm ta nga jéem a dimali faj sa rakk ji kër gi nag nee na tey dañ nga fan yii pour ma jël dépense li may jël as néew si laa yore di ko joxe nii. jooy yore sama poche nag commence fa ah. kan. waaw te yërëmal supa gis nga supa tamit mu mel jooy na ba jeex. mën naa yaaj de. lan la. yow te papa dafa yoon. waaye yow. waaye yow ah, dama xam ni man dof naa fi jaam tey dof na. yow sa dof. da nga yéegoon si tuuru jàmbur. looloo la loo kii nag la ko loo xaw ma la ko dofloo. sama baay xamul nekkul dof aw ma ah sama mago baay nekkul dof sama nijaay baay nekkul dof sama yaay nekkul dof yaayaatu yaayam nekkul dof ñun suñu famille amuñu ay dof amuñu ay rab yoruñu ay xàmba. tey nag xooy naa ba xooy mais sa xayaat sooyul quoi damaa xam ni tépp tu dof am na cause bu tax na dof man damaa yéegoon ci taw dof daa mi te doo ta yaat moo tax mu dof. waaye man mii ngay tonay di ma yaaj di ma bëgg a yey man lu ma ci man man mënu ma ci daya nit day nite damaa xamul ko dof nan nga koy laajee lan moo tax nga dof yow nite woo yow nite woo ndax boo nite woon doo ma ne man ma laaj dof lan moo tax mu dof ak jom bëgga dee kooku yor sa caayam ju bon eh Jude Jude Jude Jude Jude taay taay taay taay taay taay taay taay taay fetti ma ci biir taay taay taay taay taay tata way nii yaa yow mami tu yow mami tu yow yan moo tax nga yattax ya yow man lan laa def yow mami tu ndate det yaay yanti nooy mami tu yan moo tax ngay dem tam papa man wax ji yëmati dina metti ba dën ma tee metti yu tax nga tudd ci affaire yi seen yow amamitu dama bëgg nga dimbali Jean Michel mi ndax man dama sonu tan dama sonu may wax nga ba ma damaa bëgg di may daami te damaa tooñ mais mamitu yow dañ maa bëgg a fontoo waaye yan ya yow léegi lan nga ma bëgg def da maa bëgg do dóor mamitu xoy duma ma tam moyom yaay wax dënn baax yi may wax mamitu yamay yamay tu tuddu ñu yof ya ci gayet mamitu dënn baax yi may xam nga yaan may jema a afayonte nag bis bu ma dayé sa taw bis bu ma dayé sa taw bu boba dina xamni day sa taw yow ban maa moytu yow ci këy gi. Jean Michel moom hey. peñ taa gëy wa daw may wax nga naan temps mi tey moom te yoon nekku ci yaay wax tottu bay ma yi yow waxoon ne ni jigéen toppay te bu wóoyu yaa ngi ni bëdd tax sama sama sama dii bëdd maa yaa tey jabaate bay bëddalee mamitu tu eh, eh boo ma xëy waat eh mamitu ba boo ma xëy waatee ma toj waa jaw. damay xool gi damay xool ba nga xëy waat ma non damay xooy ne. eh waa kay muub. waa kay kaay kaay. maa ngi sant alhamdulilah. déet déet muub foo jëm. dama bëggoon a jàll. waay yow toogal nii li ñu waxantoon tey suba foos tool. waaw maa ngi ci de dama ne xaaral ma may picc yi rek ñu barkeelu rek. waaye bu bu ma fontoo waay tamit nag yow ma ne la demal dem a lijjanti tey picc yow yi moom moo gën sa patron. alaaji defal nànk yow man gis nga li ngay wax nii nim la ñore noonu la ma ñore man feebaru petit bi ñor na ma parce que moo mon avenir qui est en jeu. waaw bu la ñoroon di nga fi bàyyi di dem si picc yi. du loolu dama faa dem euh, nekku fa mu génn ñu ne ma bàyyil ba boori timis dina ñëw man ni balaa diggante boobu ma profité ci jox ci picc yi seen seen ration du jour. li ñuy xaar day gën a métti de. Ah, loolu kay dëgg la man kay xam naa la waaye comprendre rek alaaji ànd la ko dal nag jëndal galaas nag nga teg ci sa xol rek jël sa loxo fëgg sa dënn daal dal tuuti waaw yëf yi mu ngi on on va les mettre entre les bonnes mains waaw loolu du problème yow bàyyil man man ma def ma fay fay mon devoir dans les ci picc yi rek. ah kay lii la rek dul la ah, ah la laa def yàlla. yàlla dina ko fay xolam de. i sama petit mii nga xamante ne kër gi bu fi nekkee kër gi ji ah. amu jug dem noppale ko ci rek ndax man sama ba léegi damaa